moo tax libéré leen baa Diakhaté nu mu gën a gaawee ngeen topp ki nga xamante ni moom moo ne moo daan joxe njëgu essence ak njëgu cocktail Molotov parce que état continuité la yéen a inauguré BRT bërki démb état continuité la yéen a inauguré yeneen liggéey yi fi mag sàll teg état continuité la dimbali leen sénégalais yi ngir yàlla ngeen boole ñëpp teg leen ci yoon pour senegal mën a jubbantiku Bah jaxate waxu fi lu ngeen fi waxul lu ne dégg nañ ko fi pour rek xeex ba ci man mii toog mais dañ doon xeex ne lii mooy dëgg moo tax libéré leen Bah jaxate nu mu gën a gaawe ngeen top ki nga xamanteni mom mo ne mo daan joxe njëgu essence ak njëgu cocktail manatof parce que état continuité la yene inaugurer BRT barki demb état continuité la yene inaugurer inauguré liguey yi fi Macky Sall tek état continuité la dimbali len sénégalais ngir yalla ngeen boole ñepp tek len ci yoon pour Sénégal mën a jubbantiku Bah Diakhaté waxu fi lu ngeen fi waxul lu ne dégg nañ ko fi pour rek xeex ba ci man mii toog mais dañ doon xeex ne lii mooy dëgg